Lamine 4-4 bu weex a ngi taxaw. waaw Modou xarañ loo ngi noonu. Ah, kii de daal bi moom la gars wax mu ngi états-unis ma. ñëw na de. Papis lay seen na le. Papis xarañ loo. ndeysaan kon nañ avancé dem ba xam. kaay leen <laughs> ñëw salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar de sama gars yi maam ngeen jàmm Modou. Papi Modou Ngok. borom États-Unis. tey duñ leen may dara. koo koo duñ may dara. yéen duñ leen may dara wax. ñu nag yéen. ci yow. ne Pape Issa daal moom. ay provocateur lañu quoi. du ma ci wax loolu du ma ci wax. ñu nekkoon foofu xam nañ ku tooñ. ñu nekkoon foofu ñan ñoo fa newoon. saat ñi fa nekkoon xam nañ ku tooñ. lu jotewuñu ak moom dara. am na leneen lu mu wax sax neen da ngeen di ñoo ñëw mbaaw. yàgg kii la wax Serigne que xam naa moom moo ñu gis moom. waaw nit moom wax sa diggante ak yàlla. loolu moom léegi ci biti la ko wax sànq léegi ma sa 10 yaa ngi fi. Moodu mi ngi ne la Moodu mi mënuñoo bañ a moom Moodu mbaa yam nga jàmm. alhamdulilah maa ngi am jàmm baax alhamdulilah. naka États-Unis d'Amérique. ça va lépp jàmm alhamdulilah ñëpp ci jàmm. ñibbi si. lumière bi saf na ah, réew moom xam naa tàmm hmm? nga. réew ma. man démb. gars dañ ne woon démb jàkkaarloo sax. waaye mais ba muy ñëw dafa guddee quoi moo tax. problème vol la ñu amoon. am na ñu ma dégg tamit ñu ne ñaa ngi woon ci dëkk bi sax de mais xam nga rek Moodu moom mooy lool ay programme moom da koy faral di kii. Eh, wax damaa dégg booy wax da ngay wax loola leer <laughs> waaye wax dëgg non amuma benn intérêt ma am signature man moom ku nekk xam na ma ci loolu ay signature loolu ñu guddee ñëw trop mënul woon nekk moo tax. dama génn fee ci biti léegi maag Lamine ñu gis fa benn contestant ay oto yu bëri mu mel ni ki combat bi ñi dañ ko jël au sérieux parce yegg nañ ba ci ne li amoon maanaam dañ ne yow maanaam sàcc bu sàcc sa téléphone nga jàpp ko. da lay delloo sa téléphone da lay delloo par force maanaam da nga li nga leen defoon. waxu mbër la rek <laughs> waxu mbër la rek ñoom defuñ ko teg buñ ko respecté benn ñu respecté nañ ko fukk waaye moom comme moom suñu kanam ci bari jaarul wax ñaan yàlla rek moom may ñu tal ak fekke bu bis ba incha allah. Mhm. gis nañ la ngay pousse tamit ay xaw ma da doon bay xaw ma la doon def si gason bi États-Unis loolu lan da doon bay. non bay man wax dëgg nag bu ma bay nag moo xam koy bàyyi dama koy bàyyi ñaar rek ak Lamine. ay baykat lañu gis nga ñu ñuy ji dugub sax. waaw mais man moom wax dëgg yàlla mënu ma bay nag. kon li doon def non non dama jóge entraînement juste rek dañ doon coupé ñax yi foofu rek quoi loolu bu dañ doon dagg ñax yi rek ah damaa jëli Pape Diop Boston. waaw Pape Diop Boston waaw ma ne ko Modou Lo ak Eumeu seen premier combat bi dañoo gis ni Eumeu Sène jàpp na ay quatre fois yéen na ko fa ay trois fois mënu ko woon daan est-ce que ngeen àggaatee foofu. di nga ko daal waaw. ndax dina ko na loolu nag liggéey nañ ci ba pare bu nekkee pare nga pour joxe waa tànk bi Modou. kon joxe waa tànk gauche bi. làmb day comme li ma la wax rek man aw ma lu may may mais comme lamb la ñu wax daal lépp ci lay nekk xam nga du day damay may tànk damay may wet ak yooyu noonu moom moo bëre ba yegg foofu rek ñu bëri mais comme moom làmb la lu nekk ci làmb lay xewee daal làmb la rek daal dañ bàyyi noonu rek incha allah. am na lu mu du wat du moytu ci moom. wax dëgg yàlla amul lu mu ci benn benn benn mbër wax dëgg. non non lu may moytu bu ñu liggéey li ñu war a liggéey kay ñëw taxaw lañ moytu amul benn moytu wax dëgg yàlla. national wala Léopold Senghor fu la gënal ah, moom koy bàyyi ci promoteur bi xam nga comme moom mooy décider loolu daal dañ ne ci contrat fu ñu ñu foofu rek moom incha allah foofu lay doon. nee na mbër wala bëreekat. waaw lan mooy waaw mbër mi wala bëreekat parce que mbër ak bëreekat la ñu wax yow boo ci bëree loon. man de xaw ma ci différence bi moom mbër ak bëreekat moom xaw ma différence bi man wax dëgg yàlla Eh, non non wax dëgg yàlla man xaw ma différence bi. <laughs> yow daal bëri nga xam dañ ne ku tukki ñu reer sa ginnaaw dama koy faral di dégg bi nga tukkee dañoo gis sa kër lu mel ni lu yëngatu coowal changé président coowal kat bu ne mbër mi du joxe xaalis daal dégg nañ fi yu mel noonu après ñu delluwaat ba ca ginnaaw déggaat ci ay mim mag yu mel noonu loolu bi nga ko dégg nga coow loolu sa diggante ak Moussa Yacine. ah nga feebu boo fa nekkee wax dëgg damay dégg la xam nga lu ñuy wax rek des fois bu mu ñu bokk te ñooy laxasooy gocc mais léegi nit ñi ñoom dañuy utiliser dañuy utiliser xaw ma sax yéen laay wax. oui parce que. non parce que damay wax waxtaan. dafa bari surtout ñuy ànd di liggéey. te xam nga am yoo xam ne mënu ci ñàkk lu bari dañ koy toogee di waxtaan mais. Mm-hmm. am ay dem ci réseaux sociaux yi sama xol yooyu di wax loolu fa fajul dara xam na waaw. te comme dégg naa ku ci mel ne Moussa Yacine xam nga ba ma nekkee fële bi wax wax dëgg yàlla ñu doon entraîné ba pare xool sama téléphone. dégg quoi gars yi xam nga def kii ak yooyu noonu mu métti ma trop trop xam nga parce que jiw ma ko loolu xam nga ba ñuy ànd liggéey yàgg na te xanaa lu waay gàtt gàtt gàtt xel kenn du tëgg lu nit doo ko fay. xam nga xanaa kay danaan xeeb lay wax xeeb moom lay wax mais nit tamit du mën nangu yësam la nga jël nettoyer sa. buntu kër ba mu set ak mbari jël tuur ko ci ci ci buntu kër jàmbur xam nga parce que comme booy ñu ñuy so ñu ñuy ñu ñuy sopp bari na xam nga suñu njaboot ak yëpp am na yoo xam ne bu ñu ko déggee duñ ci kontaan du leen neex xam nga te loo xam ni man sama loxo ak ak loxoom. Hmm. xanaa combat bi passé gàtt gàtt gàtt gàtt wallahi la azim jox naa ko million. Hmm. mais léegi xaw ma lan mooy problème yow moo ne fay moom wala lan. way wallahi la à la fin moom dem na defaat na benn sortie mu ni waxul lool de xam nga am na yoo xam ne boo am woon du may sax ñëw di tontu wala yooyu noonu boo ma ci laajee tu as compris parce que di nga xam lu nit wax ak lu nit dul wax xam nga combat bi taxawee ba ñu ñëwee am première face to bi ñu am fii monument de la renaissance esam lax ma wax père comme muy dafa bëggoon foor ak yooyu ma wax père mu joxal ma ko trois cent mu joxal ma ko combat bi jegee ba ñu def open press ma jox ku ñu naan sama benn booy Ahmed ma jox ko 700000 pour mu dem joxal ma ko. léegi am na loo xam ne comme li ma lay wax rek du waxu xam nga internet wala yooyu noonu te loolu quoi ak lu mën a am moo tax am na yoo xam ne rafetul daal ñu bokk waaw waaw ñu bokk liggéey daal la ñuy rafetal. léegi changé ngeen président Rock Énergie e si teg teg fa teg fa Khadim Gadiaga lu noo loolu yow. sot seeg sot seeg def ci la rek ñoom ñëpp benn lañ wax dëgg yàlla ñoom ñëpp xam nga écrit bi moo leen ñor liggéeyal Rock Énergie moo leen ñor moo tax lépp benn la. léegi premier objectif allah bu soobee yàlla moom lañ bëgg. Modou ngay waaj.